الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله bokki jullit yi ginnaaw bi nu sante sunu borom tabaraka wa taala julli ci yenentam ba alayhi wa noo ngi leen di nuyu ca nuyoo ba gën ca nuyoo yi di nuyób lislaam muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh gannaaw loolu noo ngi ñaan sunu boroom tabaraka wa taala mu defal nu jàmmi addunaak jàmmi yowmal qiyaam saxal ñu ci siraatal mustaqim te defal ko mboolem jullit xam ngeen ni jataay bii di sàkko xam-xam bokkoon na ci sunuy fàttali talaata ju jot nu fàttali benn xadis ci xadis yi nga xam ni ñoo nekk ci téere boobu ñuy wax xisnul muslim ñu di ko wax Euh, citadelle di musulmans nga xam ne ay azkar ñoo ca nekk yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko daan zikkar daan ko jëfandikoo muy ay ñaanam tey jii nag inchaa allah nu war a jël zikkar bi njëkk muy zikkar bi nga xam ni nit ki su nelawee ba yeewu moom la war a wax ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallama saa daan nelaw ba yeewu ñaan gii lay wax ñaan googu nag lañu bëgg a jàngale moom lañ bëgg a fàttali incha allah firi ko def ci ay leeral def ci ay jàngat incha allahu cënam gën a tënkoo bu soobee sunu borom ndax du nu bëgg du nu bëgg vocal bi gudd lool zikkar gi maanaam nit ki su nelawee ba yewwu la nga xam ne yonent bi daan na ko wax loolu dafa jaadu ci bépp jullit boo xam ni gëm na ni borom bi tabaraka wa taala mooy sunu borom gëm ni yàlla moo yebal muhammad sallallahu alayhi wa sallam gëm ni yàlla moo ni na ngeen roy yonent bi alayhi salaatu wassalaam topp ko ci ay waxam ak jëfam bépp jullit bu gëm lii day war ngaa xool la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daan wax saabu bu yewwoo ngay wax loola ndax gis ngeen mbokk yi azkaar yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan na ko jëfandikoo daan ko jox saxaaba yi ñu di ko jëfandikoo wallahi ëpp naa sàggane lu am solo la lool mbokki jullit loo xam ni moom la yonent bi daan ñaane daan musloo daan jàpp ngir borom bi dimbali ko ngir borom bi jàppale ko ngir borom bi musal ko ci seytaane ngir borom bi dëgëral ko ci ay noonam ngir borom bi dëgëral ko ci li lore ngir borom bi jàppale ko ci mu gën a mën a tënku ci jaamu yàlla loolu day mbokk yi sàggane ko ëpp na loolu kenn ku ci nekk war na ko jàng ba xam ko di ko def ngir ni sa yonente alayhi salaatu wasalaam moo ko daan def ndax xam ngeen ni bu dee aaru dongo aaru képp ak dëggu sax ci lislaam sax ci jaamu yàlla ci yonent bi la war a gën a yeyee bu dee aaru dong ak fegu dong ci yonent bi la gën a yeyee waaye ànd ak loolu yépp nag da daan jëfandikoo azkaar yi nga xam ni boromam tabaraka wa taala moo ko ko digal mu di ko wax yii buy yeewoo la koy wax yii buy nelaw la koy wax yii buy génn ci këram yii buy dugg ci wanag yii nangam sangam lenn lu ci nekk lu yenent bi alayhi salaatu wasalaam daan def am na zikkar gum daan def benn mu bëgg ko def ngir aaroo ko benn ngir mu bëgg ko def ngir yàlla gën ko jàppale dëgëral ko taxawal ko mu mu gën a tënku ci diine bari na lool mbokk jullit yi loolu nag jullit bu ci nekk jaadu na mu di xam lan la yonent bi doon def ci bu bëggee def sàngam man it su ma ko bëggee def ma wax ko ndax kat wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam da dul caaxaan de du caaxaan te liy wane ni wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dëgg la mooy tusaddiquhu alwaaqia am gi mu am mooy wane ni wax yonent bi dëgg la am gi mu am su ne nangam ji ku ko def nangam ji ngay am ku ko def am loola su ne ko def lii lii du ko lor ku ko def loola du ko lor noonu la wax yonent bi mel du wax mukk ci bànneexu bakkanam du wax lu ko neex lu mu wax lu nekk borom bi tabaaraka wa moo ko ko wax loo kon lim daan jëfandikoo jaadu na jullit yépp xam ko te di ko jëfee ñoom it bu daan nelaw ba yewwu nag lam daan wax mooy alhamdulillahi alladi axyaana baada ma amaatana wa ilayhi nushuur ma bamtuwaat ko alhamdulillahi alladi axyaana baada ma amaatana wa ilayhi nushuur lii lu muy tekki mooy alhamdulillah alhamdu cant cant ak màggal kooku day lillaahi ñeel na yàlla cant yàlla rekk la ñeel war nañoo sant yàlla te sant ñeel na ko alladi yàlla ma nga xam ni axyaana moo ñu dundal baada maa amaatanaa gannaaw bam ñu rayee ba noppi maanaam cant ñeel na yàlla ma nga xam ni moo ñu yee gannaaw ba ñu nelawee ba noppi moo ñu dekkal gannaaw ba ñu dee ba noppi ndaxam ngeen ne kuy nelaw dee nga soo yewoo dekki nga wa ilayhi teyit ci moom yàlla wa ilayhi ci moom yàlla an nushuuru ca la dellu ñun ñépp bu ëllëgee yowmal qiyaam loolu mooy ñaan gi sunu yewwoo ba noppi sunu nelawee ba yewwu loolu mooy ñaan gi solo si mu am nag bari na lool xoolal li mu njëkkee mooy cant ñeel na yàlla kon mbokkum jullit bu nekk war na xalaat ni man mii nelaw naa ba yewwu ci jàmm ak salaam moonte day am na sama mbokk moo xam ne tëdd na te mënta nelaw ndax wopp am na mbokk moo xam ne tëdd na mënta nelaw mukk ndax wopp am na yit koo xam ni tëdd na mënta nelaw ndax ay problème yu bari ak i jafe-jafe ak i natt yu metti lool ci moom mënta nelaw yow nag nga nelaw ba yow nga ne ko alhamdulillah cant na yàlla am na koo xam ne tëdd na nelaw te yewuwut fa lañ ko fekk yóbbu ko armeel ya yow nag nelaw nga ba yewwu ba jógaat ci jàmm dara jotu la nga ne alhamdulillah kon ci ngay déggee ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ku am dégg-dégg la te ay azkaaram di koy bàyyi xel ak am solo mbokk yi wan ne la yow mii nelaw ba yow am na sa moroom mu mënta nelaw ndax feebar am na sa moroom mu mënta nelaw ndax ay problème am na sa morom moo xam ne mënta nelaw ndax wóor na ko ni boo xëyee amut mu joxe depanse am na sa morom mu tëdd mënta nelaw ndax jafe-jafey àdduna ak i natt yu ko borom bi teg kon war nga sant yàlla yow mi nelaw ba yow ci jàmm ak salaam ba ca topp mooy yow moo muy di wax loolu war nga xalaat ni ëllëg danaa delluwaat ci sama borom tabaaraka wa taala nii ma tëddee mu nelawal ma yëguma dara dégguma dara gisuma dara noonu danaa ko mës a tëddee ci biir bàmmeel du ma yëg du ma gis du ma dégg te danaa yewwaat ëllëg yowmal qiyaam dajeeg suñ borom kon ndax yey na ci àdduna bii ma nekk di fi def ak njombe kooku ñépp war nañ ko bàyyi xel loolu kooku mooy yonent bi mbokk yi su ne la defal ñaan sàngam boo ko ñaanee waxuma la ñaan gi rek njariñ gi waaye càmbar ko bu baax nga xool li lim la ci bëgg jàngal yow mi nelaw ba yeewu guddi gi yépp yëgootinoo tinoo bu doon dajji kër gi sax mën nga ko bañ a dégg noonu ngay tëddee ëllëg ci sa biir bàmmeel di nelaw doo yëg dara doo dégg doo gis danga nga yeewuwaat nag bu ëllëgee yowmal qiyaam ñépp daje fa ci kanamu sun borom tabaraka wa taala mu war ñoo atte kon noonu la ñaan gi demee alhamdulillahi alladi ahyaana baadama amaatana wa ilayhi nushur lii nag xadis la boo xam ni ñu ngi ko jëlee ci xusayfata ibnul yamaan xusayfata ibnul yamaan ak bara ibnul azib ci lañ jële xadis bi nga xam ni moo ñu xamal ni yonent bi loolu la daan wax saabu bu yewwoo bi buxaari yu moo ko solo ci xadis ba nga xam ne ñu ngi ko jëlee ci xusayfa ni mu ko waxee mooy fii sax mën nañ cee am tey ñaari askar ni mu ko waxee mooy yonent bi day sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na saa bu demee ba war a tëdd maanaam bu war a dem bu demee ba war a tëdd guddi day jël loxoom teg ko ci suufu lexam noonu la xadis bi ñëwee ci bu xusayfa mu ni yonent bi su demee ba war a tëdd guddi day jël loxoom teg ko ci suufu lexam fii nag loxob ndeyjoor maanaam day jël loxob ndeyjooram teg ko ci suufu lex bi daa di wax ni bismika allahumma wa ahyaa kon jàng nga ni buy tëdd nelaw sax am na la muy wax la muy wax mooy bismika allahumma amuutu wa ahyaa loolu mooy lan mooy ci sa tur yow sunu borom ci lay dee te ci lay dekkee maanaam ci lay nelawee te it ci laay yewwoo maa ngi nii fas yéene tëdd nelaw waaye nag ci sa tur yow suñu borom ci laa fas yéene nelawee te su ma yeewu ëllëg it fas ne naa yeewu ci saw tur muy lu lu amaat solo mbokk yi kon kii di tëdd di nelaw wéer na ko ni ba may tëdd ci turu bun suñu borom laay tëddee di nelaw kon day war na maa bàyyi xel bu baax ni man mënuma dara ndekete nelaw yi may tëdd sax wóorut ndax danaa ko defam déedéet suñ borom dong laa ci yaakaar mu may ma jàmm ba ma mën a nelaw te it yow yaakaaruma ko suñ borom dong laa ko yaakaare kon ci turam rek laa koy barkeeloo waaw kon nag soo demee ba yow nga ni moo tax xadis ba continué mu ni su yonent bi woo mu wax ni alhamdulillahi alladi axyaana baadama amaatana wa ilayhi nushur buxaari yu moo solo xadis bi léegi nag yow nga jàng ci ne kon man su may tëdd sax war na maa teg sama loxob ndeyjoor teg ko ci sama suufu lex maanaam naa tëdd ci sama kaw loxo ndeyjoor bu may tàmbali di tëdd di nelaw ndax am na beneen xadis boo xam ni sax ñu ngi ko jëlee ci Ya'ish ibnu Taxfatal yi yàlla na ko yàlla gërëm mook baayam dafa wax ni benn bés moom daa tëddoon ci jàkka ji bi mu tëddee nag mu dëpp maanaam mu jël mu jël biir bi tëdd ci maanaam dafa dëpp dafa dëpp tëdd ci kaw biir bi nee na ci noon rek mu gis benn waay bu yëngal tànkam di yëngal tànk bi bi mu ko gestoo mu ni ko nii nga tëddee day sun borom da koo bañ inna haadihi dajaatun yubgiduha allahu nee na ko tëdd gi nga tëddee nii maanaam dëpp gi nga dëpp nii sun borom da koo bañ nee na bi ma ko xoolee rek ndekete yoo yonent bi la alayhi salaatu wassalaam ndeke yonent bay wax ak man ni ma tëdd gi nga tëddee yàlla da koo bañ xadis la boo xam ni abu daawuda moo ko soloo di xadis bu wér kon yow di nga ci dégg ni ndekete man tëdd sax bu ma koy def dama war a xool ni yonent bi doon tëddee mooy lan teg sama loxob ndeyjoor teg ci sama lex tëdd kon képp kuy dëpp na xam ne loolu la yonent bi wax ci dëpp booy nelaw dëpp nee na yàlla da koo bañ loolu la nga ciy déggee ne kon ndekete yonent bi alayhi salaatu wasalaam lépp lu mu daan def danaan tudd yàlla bala mu ko def te lépp looy def tudd ci sunu borom borom bi da koy barkeel mbokk yi donte da ngay ànd ak sa soxna yow sa góor gi dangay tudd sunu borom yàlla barkeel la ci ndax am na ñaan dañ ci ma sa agsi bu soobee yàlla soxna si kadalika bu may dox di dem sax am na lu ma war a wax même bu may sol sama mbubu am na lu ma war a wax lépp looy def am na loo war a wax tudd ci sun borom bu ko defee borom bi barket loolee ngay def ndax kat yonent bi wax mas naa wax ci xadis mu ni képp koo xam ni toog na ci bërëb te tudd fa yàlla toogaayam booba perte la ak rëcc bu yowmal qiyaame mu waxaat ni képp ku tëdd te tudd sunu borom tabaaraka wa taala kooka day tëddaayam booba perte la dong akuk rëcc bu ëllëgee xadis la boo xam ni Abu Daawuda moo ko solo kon lu jullit bi di def war na caa tudd suñu borom tabaraka wa taala kon nañ xam ne nit ki su nelawee ba yeewu loolu yi lay ñaan mooy alhamdulillahi alladi axyaana baadama amaatana wa ilayhi nushur xadis la boo xam ni buxaari yu moo ko solo du lool dong waaye mooy bi ci gën a siiw niñ koy defee mooy jël ci bi gën a siiw rekk ndax léegoo-leeg yonent bi wax ñaan gi yenn saay mu wax ñaan gi waaye bi gën a siiw la ñuy jël incha allahu saa yu nekk noo ngi ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu defal nu jàmmi àdduna ak jàmmi yowmal qiyaam jéggal ñu mbooleem sunuy njuum teg sunuy bàkkaar te nangul ñu sunuy jaamu yàlla defal ko nag mbooleem jullit wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu